dikkati naa dañu daan wax coow la ca pëndub ba gaañaamul baaga turbine yéen a kaay naan maan coow li coow li fi ne ci réewum Sénégal mooy ñaar fukk benn ci candidat yoo xam ne fi ne daar daar en attendant les événements écarté nañ leen ci présidentielle bi yéen a kaay naan maan ni démb lañ doon amal tirage au sort ngir parrainage bi nag ngir mën a bokk ci présidentielle bi juróom-ñeent fukk ak ci ay candidat la woon ci ndorteel citoyen muy ñaar fukk benn ci candidat yoo xam ni écarté nañ leen en attendant yeneen gars yi ñu yor seen dossier te fi mu ci xool sa dossier di wàññe benn ñaar ba mu mat juróom-ñeent ci ay pièces yi nga xam ne article 121 bu code électoral bi moom la laaj yow moom sab dossier daal di jàll waaye benn ci juróom-ñeenti dossier yooyee bu manqué da ngay toog xaar tribune yéen kaay naan maan Bougane Gueye Dany ma ci juróom-ñett fukk ak ñeenteelu position bi aljuma ji la Bougane Gueye ci contrôle bu parrainage bi le soleil yéen kaay naan maan boobu sept ña ngay andi ay leeral xam le ni dossiers yi nga xam ne matal nu juróom-ñeenti ponk yi nga xam ne moom la article bi daal di digle dañuy daal di ber seenug dossier Boubacar moom mooy tàmbali mbir yi Aïda Mbodj moo koy daal di tëj ay mandataire nag daal di xam ne ni mbir mi daal jaar na yoon Sud Quotidien daal di naan ma mbir mi ci loxol sept sages daal di tegu bu Boubacar Camara tijjee classe bi Sonko ma nga ca 4 Asia Idrissa Seck Mimi Touré Boun Dionne ak Malick Gakou fi mu toll nii nag seen xel mën naa la mbaajoo a Sadio Camara ma ngi leen di artu de ma nga naan leen juróom-ñeent ci ponk yi matal leen ko lu ko mooy làmbaay ñaaw bés bi le jour naan maan at waa ngi jeex tirage au sort ñu daal di koy amal ci kan bi waaye daal di koy amalit ci présidentielle bi Amadou Ba parrainage bu élu territoriaux yi moom la jël am nay candidat yoo xam ne déposé nañu mani la te amuñu sax caution te ñooñee mën nañoo yàqal ña nga xam ne ay candidat yu sérieux lañu dugal seen loxo ci mbir mi def ci seen alal ak seen temps ngir mën a jàll doublon yooyee mën a yàqal ñeneen Ousmane Sonko ma ñu waroon investir ni ki tey moom préfet daal dinay aaye Ousmane Sonko investiture am bi war a amoon nag ca terrain ak pes bu ndakaaru moom Chérif Mouhamadou Blondin Ndiaye di xam ne nag trouble à l'ordre public boo moytul mën na ko am waaye tam tere askan wi doxi seeni soxla El Malick Ndiaye naan dara geneenu provocation rek loo xam ne deesu ko nangu tey deesu ko nangu ëllëg Walf naan man en tout cas diggante Ousmane Sonko ak président Macky Sall lëmbee na baax a baax atub 2023 bii ñu génn boo ca dindee la président Macky Sall ne candidat moom duma ko la ñu seeyal Pastef la ñu sànk Ousmane Sonko dugal kaso lii daal nay lëmbee bu baax a baax atub 2023 bi l'info daal di xëy sampub laaj lan moo tax nag moom Amadou Ba ci boppam daal di làqu ci parrainage élus territoriaux yi daanaka maire yeeg ñoom seen daal ñoo ko daal di parrainel lan moo waral làqu googee Amadou Ba daal di koy def daal di bàyyi yu député yi bàyyi parrainage citoyen mbaadu nag dafa am lu mu njort ci biir camp moom Amadou Ba libération yéene kaay naan man en tout cas démb démb ca demam nga démb démb moom Amadou Ba ca diwaanu li fa xewoon daal moom maire bu jidda caaroy kaw daal dina koy teetu ak i militant am diggante dajale imaam yeeg maître coranique yi waaye tam askan wi nga xam ne ñoo dëkk ca diwaanu Pikine moom Mamadou Gueye daal di leen di dajale ba maar day taali waxtu woowu it ñu gis so Isaaxa Diop ca wet ga mu daal di lalal tapis rouge candidat bii di Amadou Ba mobilisation Isaaxa taxoon Amadou am jafe-jafe ma ni la ngir dugg sax ca grande mosquée ba yéen kaay bi naan man en tout cas lii laay wax de biir partem bi ci boppam la mbir yi nekk <laughs> lii nag kon taxul Amadou Ba daal di ya le quotidien le quotidien nan kon en tout cas 2023 bi loo ci mënti waxit diggante manifestation yàq-yaxeet diggante faatu bakkan diggante seeyal Pastef arrestation njiital Pastef ba at woo xam ne ma ni la dossier Ousmane Sonko bi moo ko marqué l'observateur nan kon nañu fexe ba li nga xam ne moo ñu toppoon 2023 duñu topp 2024 diggante politique boo xam ne yëngu na koom goo xam ni ma ngay suux sécurité ak wàllub social goo xam ne ma ngay bëx bëxi bum ñu topp yéeni kaayib futur média bi naan nañu anticiper ci bomb yi nga xam ne ci politique lay bàyyeekoo daal ji waxtaan ñu fexe kaaraange am ci réew mi ci wàllu koom ci boppam nañu def kéemtalaay kattan ba Sénégal mën ci boppam moom ci cëgal guyam Sénégal gu ñoŋ ni ki ëllëg bés bi la jour naan kon en tout cas ku dalal sunu xel ñu jël de diggante ñetteelu mandat dina amam du am troisième tranche woyefal bi diggante président Macky Sall ak Idrissa Seck Karim Meïssa Wade ak Khalifa Babacar Sall duñu bokkam dinañu bokk seeyal Pastef lii ci boppam lor nañu 2023 bi bu ñu topp 2024 tribune yéen kaay naan kon sa ñaan dëgg kay na taxaw ci wàllu ceeb bi dañoo tere nag ceebub Inde bi dugg ci réew mi te boo moytul ñàkkub ceeb mi ngi yor Sénégal lii ci boppam kuy ñaan moom nga war a ñaan bu ñu topp 2024 te bu mu yegsi ak lu mbokk yi di ñu ñaan jàmm te yendoo jàmm. déggoo la di ay protocole d'accord ginnaaw ay ñaxtu yoo xam ne waa f s signe euh, yëkkati woon nañ ko yëf fi amee naka démb soxal lu gën a fës ci li mu soxal bokk na ci indemnité de logement ak nan la ñuy xoolee critères yi nga xam ne état bi noonu lay joxe ay subvention ñi nga xam ne moom mooy waa Kër doctor wàllu tàggateeram xam ngeen ko Aliou Cissé siwal na naka démb list joueur yu Sénégal yi war a dem Coupe d'Afrique des Nations ba ca Côte ca liste boobee nemmeeku nañ ci fukk ak juróom yoo xam amoon Cameroun te Sénégal gagné ko am na yeneen fukk yu bees nag yoo xam ne ñoom bii mooy doon seen kan bu njëkk euh, te ci ñooñee nemmeeku nañ ci tamit euh, ku ci mel ni Crépin Diatta nga xam ne dikkaat na kon ci biir équipe nationale ginnaaw ba mu ko wuutee euh, bële passé bi kan bi di am lii xibaar yi lay doon buñ ci toftalee li gën a fës ci yéenekaay yi ak soxna Mantoulaye Thioub Ndoye ànd ceeg commentaire yi ak Mamadou Fofana ñu njëkk leen xamal ne rek préfet bu ndakaaru jël na dogal ne investiture bi nga xam ne waa kër Ousmane Sonko amoon nañ ko yéene investir Ousmane Sonko tey jii ngir mu nekk seen mbër ci élection présidentielle yu ñuy dëkkmal investiture boobee euh, préfet bu ndakaaru euh, bañ na ko interdire na ko Euh, mu nekk nag investiture boo xam ne ñu ngi ko doon fas yéene amal ca terrain ACAPES te àllarba bii ñu génn la coalition Sonko 2024 yeggee ko woon taskatu xibaar yi ne foofu lañ ko nar a démb nag xibaar bi ba mu jibee El Malick Seck di responsable communication bu Pastef ba woon dëggal na ko euh, bu ñu jàppee nag li waral préfet bu Ndakaaru interdire investiture boobee ne bokk na ca ñetti mbir maanaam bañ a nasaxal ordre public ba pare nag mën a may askan wi ku bëgg doxi sa soxla nga mën ko doxi suñuy bakkan waaye tam ñu ne am na risque manifestation bi ay nit infiltré ko ba xëy na mu indi euh, jiixi jaaxa euh, lu ci am nag moom moo di El Malick Ndiaye bi nga xam ne ba léegi mooy yor communication bu Pastef moom nag euh, nee na euh, ñu ngi leen di interdire ñu investir seen i candidat muy beneen provocation boo xam ne moom noonu la ko jàppee ndax booba gis nañu ne moom Amadou Ba beneen candidat ca wet ga rawatina candidat waa nguur gi moom mu ngay wër ci biir Sénégal ñu koy investir fu ne leneen ci wàllu xibaar jàpp nañ ne Ousmane Sonko mi ñu waroon a investir naka tey jii kon nag moom mooy doon ñeenteel bi war a euh, bi nga xam ne moo war a jàll ci kanamu commission bi war a toppatoo mbirum parrainage si naka tey jii saytu dossier ndax baax na commission boobe war a tàmbali liggéeyam naka tey jii ci suba si ginnaaw tirage au sort bi nga xam ne def nañ ko naka démb ca kanamu conseil constitutionnel képp ku déposé woon dossier wala ñu déposé la dossier ñu xool kañ ngay mën a jàll ku cee topp ba fa muy mujjee tirage au sort boobee am naka démb ci teewaayu euh, Nanko Bakayoko ak El Hadj ci lim toll nañu ci juróom-ñeent fukk ak ñetti dossier de candidature ñeel élection présidentielle yu 25 février 2024 yu ñu enregistré ca conseil constitutionnel juróom-ñett fukk ak juróom-ñett yi taamu parrainage citoyen bi ginnaaw tirage au sort bi coalition Bougane mooy juróom-ñett fukk ak ñeenteelu dossier bi ñu a càmbar ci wàllum parrainage yi xalaatoon nañ li parce que gisoon nañ ko et ñun pour pallier dañu teg dispositif bu doy waar fii gën a ci Sénégal parce que gëm nañ foofu mooy génne parrain yi foofu la ñu def liggéey bi dossier yi matut wala yi ñàkk ka am lim bu néew bi ñuy laaj ci wàllum parrainage bi kenn du leen càmbar candidat Idrissa Seck moo nekk ci fanweereelu place bi. tirage bi nga xam ne wax dëgg yàlla dafa leer nañ dafa am article bu wax ni képp ki nga xam ne bu ñu xoolee sa ay këyit manqué nga benn pièce ci juróom-ñeent yooyu nga xam ne moom la laaj wut la lu gën a ndaw ci parrain. lañ li ñu laaj ñu bokk ci ñi nga xam ne dañuy comparer ce dossier ak ñeneen ñi. Cheikh Tidiane nekk ci juróom-ñeenteelu place bi. tirage moom c'est aléatoire chance mooy taxaw. am nañu yaakaar macha allah ñu déposé woon nañu cinquante neuf mille deux cent soixante quatre parrain am nañ suñu réserve aussi en cas de doublon parce que doublon moom kenn mënu ko sóoraale. ci fàttali Ousmane Sonko mi ngi ci ñeenteelu place bi ci ñu ni càmbar seeni dossier de candidature Karim Wade nekk ci ñeent fukk ak juróom bi Aminata Touré ci benn fukk ak juróom-benneel bi Amadou Ba ci juróom-benn fukk ak juróom bi di yenn misaal ci tirage au sort bi. nang ko bakayo ko kon commission bi war a saytu mbirum parrainage bi jëm ci élection présidentielle wu ñaar fukki pan ak juróom ci weeru février 2024 commission boobee tey jii lay tàmbali liggéeyam ak juróom-ñeent jëm fukk ci ay dossiers yoo xam ne war na cee sëgg naka tey jii ca conseil constitutionnel liggéey boobee tam dina ko wéyal ci ngoon si te euh, suba ci dimanche ji ak ginnaaw suba ci altine ji yemook euh, at mi di jeex bii di tàmbali dañuy def pause liggéey bi tàmbaliwaat talaatu bii ñu dëkkmal war a jeex ajuma juróomi fan ci weeru janvier Euh, bu atum at mu bees mi di 2024 forum du justiciable nag di rafetlu tirage au sort bi nga xam ne def nañ ko naka démb ngir candidat bu ne xam ban waxtu nga war a jàll ci commission bi war a toppatoo wàllu parrainage yi euh, mu ne nag kon dafa jot nit ñi bàyyi conseil constitutionnel mu def liggéeyam te lépp la mu mën a tukkee ci liggéeyam nit ñi tënku ci ndax conseil constitutionnel rek moom moo mën a dëggal kan moo war a mën a nekk candidat ak ku ko dul mën a ne kon nag euh, ñu jàppee ko noonu Mamadou Fofana kon ndem toll nañu fii dafa mel ni wuré wa dem na këng waxi mag dem na ndentaan mu ngoog faaw jël am alors hmm. oui parce que boo xoolee pratiquement euh, c'était euh, mun naa wax ne ne l'une des ultimes étapes justement yi nga xam ne dañoo am solo par rapport ak le processus électoral alors euh, démb gis nga tirage bi c'était en toute transparence et tout mais man dama ci am peut-être yeneen xalaat yoo xam ne nii bëggoon naa ko ci rek dolli parce que bu mhm. fekkee ne ne quand tey jox nañ gëdd li ñuy tuddee fonction wu président de la république mhm. mu nekk institution bu am solo am na ci lu bëri loo xamante ne nii man jàpp naa ne mhm. war nañ ko améliorer war a waruñu ko woon doxalee. au regard peut-être li nga xam te ne nii mooy ñi dem DGE jël fa ay fiche te ñu sakkanoon lool te ñu sakkanoon lool. Mhm. mu nekk benn problème. Mhm. beneen bi moo di ñi nga xam ne ñoo déposé entre ñi retiré fiche parrainage ak ñu déposé. Mhm. il y a un fossé énorme ana ñeneen ñi lan la ñuy doyee yooyu données ñu jël personnel u nit ñi. donc loolu ça pose problème. alors nga ñëw ba ci fi nga xam ne ne moom la ñu jàpp ne ne moom moom la ñuy njëkkee mu di lan mu di recueillir les dépôts d'abord. Mhm. bu ñu paree doog a jëm ci li nga xam ne mooy tirage après définir ordre de part passage bi. Mhm. après doog a balaa ñu lay kii ñu xool ba xam benn. lee neuf pièces matale nga ko. Mhm. beneen bi mooy ba xam matale nga parenage mais man dama jàpp ne ne. pour ñu mën a pallier justement à ce cas de figure bii nga xam te ne nii tey ñi ngi koy dund avec des candidats yoo xam ne kii ne some pas sérieux et qui ne respectent pas parce que comment nan nga ne danga nga bëgg a jiite nit ñi fayoo sax caution mhm. et tu te de dem na da ngay déposer du dossier mhm. mais loolu mais on ne sait pas véritablement ñooñu à quoi ils jour parce que bu fekkee ne ne dafa nekk loo xam ne lu am fula la am fayda tey mënuñu jëndee ay candidats yoo xam te ne nii joxewuñu caution. Mhm. jëndee ko ak ñeneen ñi nga xam te ne nii mais am nañ projet de société. am nañu mbooloo am mhm. nañ carrure am nañ étoffe am nañ profile am nañ background. justement mhm. pour mën a jiite. loolu tey ji nii sa fourre-tout la boo ko boolee. moom mooy indi justement tey li nga xam te nii moom la ñuy dund 93 candidats ñu ne la 16 yi fay ñu caution cinq yi peut-être ça c'est des options. mais man beneen yoon la ma jàpp moo di pour moytundiku yi am ñii ñii nga xam te ne nii respecté wuñ nit ñi jàpp na ne ñoom fonction président de la république dangay ngay xëy ñu jox la ko. Mm. ñoo ñu ci seen bopp pour régler ce cas définitivement il faudrait que ñu am yenn réforme yoo xam ne war nañ ko ci mën a def. képp koo xam ne da ngay retirer di fiche parrainage war nga d' abord cautionner. ba ñu gis ne ne kii kat joxe na caution beneen bi ñu am na yeneen critères yoo xam ne dañ koy teg corsé ko. de telle sorte que quand lii nga xam ne ñu ngi koy dund scénario bii dootuñu ko amati. beneen bi moo di ne lii nga xam te ne nii am na ci ñii nga xam ne moom mooy parrainage man dama jàpp ne ni opposition bi aussi am nañ ci part de responsabilité parce que ba ñu waree xeex parrainage bi ñu ne oui parenage bi modalité opératoire bi moom mooy problème mais waroon nañ xeex de telle sorte ko problème doublon yi nga xam ne moo leen di indil ay jafe-jafe mm-hmm. mais ñu def système bi configurer ko de telle sorte que mais benn nit benn yoon nga mën a pare na nit ki bu fekkee ne ne da nga ko tey nag pare na waat keneen su boobaa tu tombes sous le coup de la loi parce que loolu aussi moom mooy dimbali nit ñi justement ñu war a mën a am élection yoo xam ne nii dinañ am ak des profils yoo xam ne justement dinañ mën a jiite parce que boo xoolee muy les collectivités territoriales muy même avec nos députés on a un problème de profil te loolu nekk na loo xam te ne nii dañ ci war a indi ay saafara mmh. jërëjëf Mamadou Fofana ci geneen fànn nag euh, yi nga xam ne démb déggoon nañ leen ne ñoom bañuñu ko ci ba weeru janvier ak février ñu bañ a defar mburu dem ci ay fanu grève loolee la ko waral mooy ay jafe-jafe yu leen dab ak ay mbirum fisc fiscalité yoo xam ne daal ay xeetu taxe yu ne ñu koy teg seen kaw tax na ba secteur boulangerie tey jii ne mi ngi ci jafe-jafe biñ ci laajtee xalaatu waa ASCOSEN rawatina si se mi nga xam ne mooy vice président bu euh, association des consommateurs du Sénégal moom nag nee na bu saafara waree mën a am mi ngi ci loxooy tey jii ministère du commerce ndax jàpp nañu ne ca bitim réew njëgu blé nga xam ne moom la ñuy wol def ko farine defaree ko mburu njëgu na kon kilifa yi gouvernement bi na pexe nu ñuy réajuster prix yi ba ku ci nekk mën cee gis sa bopp mën a saafara mbir mi balaa muy yegg feneen kon lii saafara daal mooy ñu woote waxtaan ñëpp ñu seeg secteur bi ngir ñu toog waxtaane lan mooy solution balaa boulangerie di xalaata yokk mbur mi Momar Cissé ci téléphone u Fabrice Ngeba augmentation prix mburu solution bi ñu gis mooy comme fëriñ ñu koy defar te fëriñ bi boo ko xoolee blé bi nga xam ne moom la meññee yi di importer prix bi wàcc na depuis six mois comme wàcc na depuis six mois ministère du commerce war na mën a woote ñu xelaat ban prix lañ ko war a jaayee boulanger yaakaar naa ne bu boobaa dina yomb ci moom ba nga xam ne dañ solution bi ba duñ dem grève parce que bu boobaa itam augmentation prix mburu du am TVA bi ñuy wax foofu c'est le ministère qui s'en mais ñoom seen revendication première augmentation prix courant bi la woon mais ministère du commerce bu wooyee meññee yi ñu waxtaan ak ñoom solution mën naa ci sa xalaat boulanger ñoom ñoo nekk si dëgg. boulanger yi fi ñu jaar moo dul foofu. comme prix farine bi man nañ ko wàcce mais nañ jaar foofu ministère du commerce moom war a woo acteurs yi ñu xoolaat tëddinu prix farine bi nga xam ne moom la ñuy jaay boulanger mujje nañu jubóo di ministère de la santé ak wa fédération des syndicats de la santé waa F2S ndax ñi démb ci ndakaaru ñaari kuréel yi daje nañu. xaatimandoo ay accord yoo xam ne mooy fësal ne ginnaaw ay waxtaani waxtaan yoo xam ne def nañ ko léegi yegg nañu fa ñuy juboo te la ñuy juboo dañ koy tënk ci kayit ku ci nekk signe nga doon seede sa moroom doon seede également ca la nga signé kon nag mi ngi noonu mu nekkoon démb ca ministère de la santé de l'action sociale le ministère bi juboo ak waa fédération de syndicats de la santé mooy mbirum indemnité de logement bi nga xam ne ñooñu Cheikh Seck ñu ngi ko doon laajte boobaak léegi ngir ñu maasale ko ci mboolem waa kër docteur wala boog ñi ko yeeyoo ñu mën cee jot nga xam ne ay xeetu subvention la état bi di ko jagleel ay waa Kër Docteur ñu xool tam ci yan anam la koppar googee war a génn ak ñan ci hôpitaux yi ñoo ko war a jot lépp ci ay leeral ci Cheikh Seck mi nga xam ne moom moo di coordonnateur bu fédération des syndicats de la santé f 2 ci téléphone Alassane Baldé heureusement nangu nañ ba ñooñu nga xam ni da leen a bàyyi woon ñu jox leen li ñuy wax indemnité de boobu ñu tegal leen maintenant ci piste conseil d' administration ñi ngi xaar ñu woo conseil d' administration pour loolu ñu mën koo lal loolu am solo la beneen bi ñëw na ci euh, mbirum plan de carrière jëm ci infirmier ak sage-femme ku nekk xam ne dañu defoon ay réforme infirmier yi ak sage-femme war a dem hiérarchie B1 ñeneen ñi technicien a dem hiérarchie A mais loolu fexe nañ ba yenn diplôme yi nga xam ni formation yi waroon def def nañ ko ñi nga xam ni dese nañ dinañ fexe ba ñooñu ñu jox leen seen aq ak seen yàlleef ba jox leen seen diplôme jëm na ci tamit li nga xam ni mooy hôpitaux yi ni ñuy doxee mais dañ ne hôpital aussi bu buggee dox bu ko euh, a liggéey liggéey bu baax na ko jox ay moyens ñu gisoon ni état subvention yi dafa tuuti woon trop trop te amul woon benn critère bu ñu tegoon pour subvention yi mais bu ne ministère de la santé et l'action sociale action sociale dañ ko néewaloon doole léegi nag ñoom d'accord nañu pour revoiraat ko bu ñuy defaat seen arbitrage budgétaire pour que ñu xoolaat mën ko mën a yokk bu ko defee ñu nekk a mën a jàppale ne tey ji doole te loolu lu am nag juboo mujjee na am diggante ministère de la santé de l' action sociale ak waa F2S fédération des syndicats de la santé jubo gi nag ginnaaw ay daanaka ay weer moom du Fofana gars yi di jàmbat. waaw bon mais man mm. dama jàpp ne ne bu fekkee fii ngay mujjee mais mieux nga njëkkee ko. Mm-hmm. parce que man ci li may jàpp c' est vrai que. xaj na ñoom ak liñ doon laaj li ci ëpp mu di indemnité de logement mhm. mais boo xoolee c'est un budget qui a été dégagé Sénégal fan lañ juboowul xaalis am ñàkku fa de mais fa ñu juboowul moom mooy mhm. ñii ñoo war a am ñii ñoo war ñu am mhm. et à ce niveau moom moo nekkoon problème bu ministre demee ba reconnaître ne ne moom xaalis ba ña fay na ñam war a fay ñi ci des delloon na ko ministère de la santé mais amul njëriñ parce que grève boobu noonu am na malaat bu waroon faju ji mënul faju am na koo xam ne xaj na waroon a am lu mu subir comme opération intervention mënu ko def mara des taali am na ñoo xam ne ne grève boobu tax na ñàkk nañ ci seen bakkan ainsi de suite ainsi de suite et ces dégâts la collatéraux munoon nañ ko éviter justement donc loolu noonu bu fekkee ne ne ci lii nañuy mujj mais munoon nañ ko woon tàmbali ci jël benn ba bu ko defee désagrément yu ñu dund ak les dégâts collatéraux yu am ci grève yëpp kon dootuñu ko dund et beneen bi moo di ne njaboot boo leen yoree aussi il faudrait que tamit ñuy gën a ubbeeku par rapport ak surtout ay woy keede moom moo mérito léeg-léeg que le mérito loolu bu fekkee ne ne ka nga xam ne moom mooy brancardier ba euh, ki nekk ci porte ba le vigile préposé ci bunt ba ak ba ci ki nga xam ne moom mooy médecin bi mais kooku ñooñ ñëpp. maillon de la chaîne lañ ñoo xam ne mais dañoo am solo. mënoo hmm. ne kii baaxul kële mële moom moo baax. parce bu fekkee s'il y a des risques. mais mi ngi tàmbalee ca vigile ba balaa muy yegg si ba si médecin bi. kon pourquoi médecin bi nga xam ne ne moom la état jël mu nekk fonction publique moom moo mérité loolu au détriment des autres am na ci yoo xam te ne nii tamit en tant que njiit il faut ñuy gën a boole suñuy njaboot tamit di leen dimbali parce que liggéeykat boo ko dimbalee ci wàllum indemnité de logement boo xam ne nii ay soixante quinze mille mille. Hmm. ñëpp xam dootoo fi am logement bu baax à cent mille francs kon donc loolu contribution la pour nit ki peut-être mu gën a mën a góorgóorlu motivation la également pour nit ki gën a mën a góorgóorlu ci liggéeyam te wàllum santé nekk na loo xam ne kenn du ko caaxaane dëgg la dëgg la Mamadou naa ñi juboo nañu ña ca des ba léegi ñu ngi xaar kuy wax ak ñoom di waa Union nationale des travailleurs de la justice ak waa SUDJUST di syndicat des travailleurs de la justice ñaari syndicat yu boole seen doole bopp fexe bokk benn xeex ci ñetti fan yi ñu génn ndax ak léegi àllarba arxames ba ci démb àjjuma ñu ngi woon ci ab grève grève ngir ne ñu fexe nuy greffier yi mën di avancer seen i liggéey ñu jëlee leen benn hiérarchie ñu yéeg feneen Euh, ak ñi nga xam ne ñoo leen di jàppale tam ci seeni wàllu liggéey di mel ni interprété ak ñeneen ñoo xam ne ñu ngi liggéey ci biir tribunaux yi ñu am seen corps bopp di le corps des assistants des greffes euh, taxoon nag ba ñoom ñu boole seen i xeex def ko naka benn kañ ca joxoon baaraamu tuuma nag di ministre de la fonction publique mi nga xam ne nee ñu këyit ya nga xam ne adopté nañ ko ba noppi moom moo ko war a yeggee président de la république ngir mu signé ko ñu mën ko tàmbalee jëfe waaye boobaak léegi defu ko ñu déglu ci leeralu Issa Camara mi nekk secrétaire général bu union nationale de la justice li tax grève bi mooy dañu demander ñu reclasser greffier yëpp hiérarchie A2 comme seen naataango yi nekk ci juridiction yi sans ñu jaar ci formation parce que seen liggéey dara du ci change ñu laaj aussi à ce que ñu créer benn corps bu ñuy wax assistant de greffier parquet corps boo xam ne ñiy liggéey ci juridiction te te duñu greffier wala interprète ñu war leen fa def te seen ancienneté mat aussi cinq ans wante ji am na point yoo xam ne moom kese moo ak yoon te ñu amoon ay dige yu jógee suñu ministre de tutelle ba léegi saafarawu leen li ñu nemmeeku mooy que juridiction Sénégal yëpp dañoo paraliser depuis trois jours lool moom kenn naatable wu ko li am nag mooy que ba léegi muy ministre de la fonction publique muy suñu ministre de tutelle kenn woowuñu ba léegi ci waxtaan li ñu yaakaar daal mooy que grève bi day wéy tant que satisfaction amuñu ko ñuy ñaxtu nag mooy ay liggéeykat yoo xam ne bokkoon nañu ca ba ñuy tàmbali projet BRT bi di ko jëmmal ci ndakaaru ay ouvrier waaye tam ay bonhomme de la circulation doon jàppale nit ñi ci dem beeg dikk bi ci wàllu tali bi rawatina ci ñi féete ci peggu liggéeyu beerte bi ñoom nag nee ñu liggéey nañu ba fii te BRT bi wax dëgg yàlla yegg na daanaka fa mu war a dawe te ñoom ñu ngay xalaat ñu recruter leen ñoom tamit ñu konn seeni liggéey moo gën ñu bàyyi leen ñuy dem di tol tolaane ñoom nag yëkkati nañu seen i kàddu ca Géejawaay ci ab conférence de presse président de la république benn ca ba muy visiter site bi ba mu nekkee chantier waxoon na leen ne bu recrutement naree am ñoom ñooy priorité tax ba ñu defoon ab dossier demande collective waaye ci téeméer ak fanweeri nit yu ko bokkoon a def juróom benn dong lañ ci recruter ñu jàpp ne nag loolu néew na kon nañ leen xalaat ci recrutement bu BRT bi kañ cay déglu di Abdou Karim Kandji di euh, porte parole collectif de bonhommes de la circulation ci ay kàddu yu mu yëkkati. bonhommes de la circulation yi dañoo dikk fii parce que dañoo gis loo xam ne ci caaxal. parce que recrutement yi commencé na mais bi ñuy bi ñuy waxee recrutement yi ñu defoon nañu déposé nañu un dossier collectif demande mais jusqu'à présent dañ ciy recruter six personnes sur cent trente cent trente yooyu cent trente yooyu ñu recruter léegi kon am na cent vingt quatre yoo xam ne ay ñu bees lañu sa ñu bees ñooyu cent vingt quatre yi liggéey bi ñuy liggéey actuellement pendant quatre ans quatre ans quarante cinq mois mars deux mille vingt ba décembre deux mille vingt trois ñoom liggéey moo lay war a man defe naa ne kay kuy jël kuy kuy jël nit ki da ngay jël koo xam ni am na expérience sa ñun expérience am nañ ko. quarante quarante cinq mois ñi ngi liggéey ñu jël ñoo xam ne ñu bees nañu ñu bees ñu nar a def même liggéey bi ñuy def. leneen ci wàllu xibaar ca Kër Massar ay artisan ñoo toog di waxtaane jafe-jafe yi nga xam ne moo nekk seeni secteur te artisanat xam nañ ko pàcc bu am solo la ci lu mën a doxal mu réew mi ñu ànd ceeg benn kuréel gu ñu tuddee plateforme des acteurs de la citoyenneté et de l'émergence ci gàttal di pacte organisé ab ndaje mu yaatu mu ñu tuddee panel lañ ca gis nag mooy sous secteur artisanat bi mi ngi ci ay jafe-jafe donte nguur gi tam mi ngi def li mu mën ngir dooleel artisan yi reportage yu Idrissa ca Kër Massar ñaata yoon lu jëme ci wàllu programme rawatina triennal d'investissement public ñuy naan ay milliards yu ñu jagleel secteur artisanat waaye mu mel ni tey la artisan yi gën a soxla ku leen jàppale. bëgg nañ benn politique boo xamante dinañ mën di utiliser li nga xamante artisan ñoo koy liggéey ñu wàññi li ñuy importer bitim réew di ko indi fii te mu am ñu fi nekk mën ko liggéey. bëggoon nañ ñëw nguur gi taxawuñu ci formation taxawuñu aussi ci pour jafe-jafe yi ñu nemmeeku lu jëmee ci wàllu secteur bu artisanat ñu koy fësal gannaaw ba ñu doon amal atelier d' échange te plateforme des acteurs de la citoyenneté et de l' amal ko. te waroon former mètres empruntés mètres empruntés war a former mille empruntés. waaye malheureusement projet bi décembre bii la waroon jeex. ñun ñoo génn def benn point de presse ñu puusaat ko ba mois de mars pour mën a jox ñu seen matériel ñun ñu waroon commande publique financement ñu tàggat leen waaye tabax niki noonu itam équipé ay villages artisanaux mu mel ni combat buy xaar pacte bëri na lool buñ buggee rek secteur artisanat bi gën jëm kanam. Idrissa Diémé ngir secteur artisanal bi gën a jëm kanam moom Benoît Sambou di ministre d'État jiite tam kuréel gii di commission nationale du dialogue des territoires. moom nag nee na faaw ñu dooleel artisans yi dooleel leen jox leen ay jumtukaay yu xar la jumtukaay yoo xam ne dina mën a tax ba commande publique nationale ci wàllu mobilier ñu mën cee jot téeméer bu ne fanweer ba juróom fukk lu am solo lay doon sam bu ñu déglu ko ak ci micro Idrissa Diémé. boo jëlee secteur par secteur da ngay dajale corps de métier nga mutualiser leen dem utal leen matériel bi ñu soxla maanaam usine yu ñuy nekk fële ca waaye mu dal koo xam ni ñeenti soxna la. mobilier national bi ngeen am ci 30 pour cent mais noo leen jotee ci mobilier national bi alors que amu ne amu leen bu baax pour defar lañ mais commande publique bi bu ñu fexe woon tey ba secteur artisanat bi dem ba carte ci 30 40 ba 50 pour cent mais Sénégal sauvé. parce que dama gëm ne. secteur bi bu ñu ko jàppalee comme ni ñu ko war a jàppalee dëgg chômage jeex ci Sénégal. dëgg la secteur bi ku ko jàppalee chômage jeex ci réew mi foofa da nga ci. waaw oui parce que boo xoolee ñi ngi chiffré ne rien que pour le secteur de l'artisanat c'est plus d'un million deux cent mille personnes yoo xam te ne nii des patrons mm-hmm. ñoo xam ne nii dañoo yor soit ay menuisier nañ ñii ña ca yatt ba ñe nga ca euh, uude ya di ñaw ak mm-hmm. dàll ak ñoom seen mm-hmm. pratiquement c'est le plus grand employeur actuellement boo xoolee ci li nga xam ne moo jëm ci wàllum artisanat. Mm-hmm. mais malheureusement secteur la boo xam ne moi je ne comprends pas munoon na nekk tey la locomotive je ah veux dire du développement mm-hmm. tey mais budget bi déjà nee nañ c'est six ou sept milliards bëriwut waaw ah, mais ki fa nekkoon ki day jàmbar sax Pape Amadou Ndiaye mm. Mm. jéem na ak les sampala moom mooy euh, les mécaniciens yu ñuy yóbbu à Diamniadio et autres mm-hmm. mais bu dul loolu mu wax ma avec six milliards ou sept milliards lan lañ mën a réaliser ak le secteur de l' artisanat on te parle du mobilier national mais mobilier national bi ñu ngi koy doog a def sax daanaka kuréel boo xam te ne nii bu am doole la donc cela veut dire quoi cela veut dire que lu jëm ci wàllum secteur artisanat considération ba ca war te ñu war ko ci def moom ci boppam moom moo ci amul il y a un programme de développement national axé sur l'artisanat boo xam te ne nii mais c'est cinquante milliards yoo xam ne justement dafa jëm ci gën a booster li nga xam ne moom mooy secteur artisanat mm-hmm. et ça repose sur cinq piliers boo xoolee lu jëm ci wàllum cuir bi Euh, der yi nga xam ne dañ koy jéggaani dem defari ko ñëw indil ñu jaayaat ñu ko mhm. pourquoi pas ngaay tey jii nii waruñu ko mën a ah dooleel ñu am ay ngaay ngaay ngaay ci gox gox ko xam bu ne mhm. beneen bi moo di ne les fruits et légumes yi nga xam ne ñu ngi koy ñu ngi koy jëfandikoo ñaata jus la suñu doom yi di naan fa ñu koy jéggaani ay dëkk yoo xam ne ne sax amuñu fruits yooyu mais dañ koy jël importe ji ko indi ko def ko industrialiser ko indil ñu ko Sénégal ñun di ko jaay te ñun am nañ potentiel bu ñu mën a may justement ñu defar ay jus yoo xam ne yu mucc ayib la ak yoo xam te ne nii suñu dëkk nañ koy bay te moom mooy gën a noppale ci li nga xam ne moom mooy askan wi. donc c'est pour dire que lu jëm ci wàllum secteur artisanat gëdd ba ca war ak fulla ak fayda gi war pour ñu taxaw leen ñaata village artisanaux nga fi gis ñi nga ci dans un état de délabrement très avancé vétuste ay mm-hmm. eh, bay bëgg daanu seen kaw kooku munoo ko boole ak ne yow da nga bëgg a jox cër li nga xam te ni moo jëm ci secteur artisanat mm-hmm. fi may terminer moom mooy élément bu précédé euh, affaire u artisan yi mm-hmm. muy ñi nga xam ne ñoo doon liggéey ci BRT mais de grâce tamit état du Sénégal bu projet amee yow maçon nga rek bu yëf yi boo waay soo tabax bi yow pare nga mais il faut ñuy penser à recycler les gens aussi pour di leen mën a insérer dans ces projets là parce que mhm. loolu moom moo lay dimbali justement bombe social bi nga xam ne moom nga jàkkaarloo ak chômage des jeunes xale yi di dem ci géej gi di di fa mhm. mais imagine koo xam ne da nga ko jël ci projet deux ans ou trois ans chaque jour yaakaar na ne dina joxe dépense këram mhm. mais kooku mais kooku dugal nga ko ci benn train de vie boo xam te ne nii moom jàpp na ne lii ak njabootam dafa war a wéy. Mhm. mais léegi bu demee bañ nga jékki-jékki rek arrêté le projet ne ko wéy li nga doon doye de yem na fi jeex na léegi demal sànni ko ne ko demal ut ji leneen loo defi. Mhm. mais loolu moom mooy indi waaja bu gisul la mu xam dem dugg ca gaal gi. dem def i préfère ñàkk bakkanam. Mhm. donc il faut penser à. recycler ces gens là xaj na am na ñu ci mënoon a dawal pourquoi war ñu leen dugal ñu doon ay chauffeur am na ñoo xam ne mën nañ nekk receveur am na niveau d' bu leen mën a permettre ñu doon ay receveur am na ñoo xam ne mun nañ nekk ay bonhomme de la circulation am na ñu ne ñoo xam ne donc autant de euh, de ressources humaines boo xam te ne nii mun nga leen jël insérer war leen ci yëf yi bu ko defee daanaka dund bi day continuer mais koo ci arrêté tamit mais sànni nga ah ko ah. donc après nag ci lépp lu mu mënti dugg fii nañuy taxaw naan chômage chômage ak yooyu et responsable après. mi ngi mi ngi noonu Mamadou Fofana ca département bu mbuur fukki dëkk ak benn yu bokk ci commune Ngéeñeen ñoo génn ci mbenn mi dox doxu ñaxtu ngir ne ñu xalaat leen ci wàllu courant ndax am na dëkk yoo xam ne ca commune ba amuñu ko dañ koy déggandi waaye dëkk yooye féete la tolloog bër gànnaaru commune Ngéeñeen ñoom nee nañ tamit nañ leen dimbali rek la leen kilifa la kilifa yi yàgg dikk ne diggante sànjara ak ngéeñeen xàll woowee dox diggante ñaari dëkk yi dinañ ko tali waaye boobaak léegi furaas daalu xëdeen reportage yu Alioune Badara Sonko. ci ab marche pacifique la onze villages yi nga xamante ne ñoo ëmb zone nord bu ngéeñeen daal di profito yebbi seen ay jafe-jafe bokk na ci ñàkkum courant. depuis donc des décennies je pense que ñu ngi fii mais amul benn village bi nga xam ne am na fi courant je pense que benn village bi nga xam ne benn partie ci village ñu nekk nii moo am tuuti mais onze villages lañu nekk ñun la zone nord te amul benn village bi nga xam ne am na ci courant. leneen li nga xamante ne yebbi nañ ko mooy ñàkkum ndox bi nga xamante ne moom la ñuy jànkoonte. xanaa takk ay sareet di root laal. mat ñaar kilomètre mën nga ko takk sareet di ko root laal xam nga du yoon. tout cas ñoom it ñu ne bokk na ci leneen lu leen ëlëm mooy yoon bu bon bi nga xamante ne moom lañ nemmeeku diggante Sandiara ak Ngéñal. chaque année ci saison des pluies yi nawet ñëwee am na ñu ci bëri nga xam ne dañ ciy dee pour jéggi pour dem Ngéñal loolu yoon. li ñu bëgg nag moo ñu construire tali Sandiara Nguéniène pour permettre nit ñi ñu mën a vaquer librement à leurs en tout cas ay semaine néew des ngir ñu sóobu ci campagne électorale bi yii les populations ñoom ñu ne li ñuy sàkk mooy opposition comme pouvoir nañu note seen ay préoccupations ngir ëllëg ñu mën cee indi ay saafara Alioune Badara Sonko moo doon jokkoo ngeen depuis Mbour pour la rajo Zik FM. Alioune Badara Sonko ci wàllu njàng meek njàngale mi faculté des lettres sciences humaines bu université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru dégg ngeen ko mu génnee communiqué rawatina ci turu doyen de faculté. bi Alioune Badara Kandji moom nee na njàng mi dina dooraat ci teewaayu étudiants yi ak seeni i professeur maanaam en présentiel waaye nag yëf yi du amee ca faculté ba ndax xam ngeen université li ko taxoon a tëj ay jafe-jafe ay lakk ak ay yu kenn xamul yoo xam ne jaar na fi ci ay jamono njàng moomee nag war a door ñetti fan ci weeru janvier ba fanweeri fan ak benn euh, ne dañ jël nañu disposition yi ngir euh, ñenn ci étudiants yi nekk ci ce centre international de commerce extérieur bu Dakar ñenn ña dem lycée la Delafosse wala institut islamique bu Ndakaaru parents d'élèves ak d'étudiants yi nag di ko rafetlu waaye étudiants yi nee nañu donte ànd nañ ci faaw nag ñu fexe góorgóorlu nu ñuy ubbiwaatee université Cheikh Anta bu Ndakaaru ba ñoom ñëpp ak seen i ay professeur ñu mën a teew ndax njàng ma foofu lañ ko xamee leeral Younoussa Baldé ci assemblée faculté bu ñu amaloon ci juróomi fànn ci weeru décembre bi lañu jëloon décision gi ni mel cours en présentiel yi dina tàmbali li ko dalee ñetti fànn ci weeru janvier atum 2024 mu di décision boo xam ne njiitu union nationale soxol association ñeel parents d'élèves ak it yu étudiants bu Sénégal di ko rafetlu bu baax a baax Thierno Ndaw di xam ne nii rek seeni mbëbët moo di ne étudiants yi reprendre cours yi fu mu munta doon waaye na nekk ci anam yu jaar yoon yoon maanaam ñuy jàng ci anam bu am sécurité Thierno Ndaw di rafetlu tamit esprit d'ouverture étudiants yi ginnaaw combat yu bëri te métti collectif gu ëmb amical yi ci université bu ndakaaru di xam ne nii rek am nañu beneen point bu positif nde ñu ngi doon sàkku étudiants yi ñu jàpp ñu bàyyi leen loolu am nañu ko rax ci dolli cours en présentiel yi am nañu ko tamit waaye àllakan di njiitu amical faculté des lettres ak it sciences humaines di ñu xamal continuer ba keroog ñu ubbi campus social bi lu am des université bu ndakaaru dañ ko tëj ginnaaw événement yi fi amoon ci juin atum 2023 te yàqu-yàqu yi bari fa lool boobu ba léegi étudiants yi ak it syndicat autonome ñeel enseignement supérieur di SAES di wéy di sàkku ñu reprendre cours yi en présentiel foofu ci université bu ndakaaru Younoussa Baldé jërëjëf Mamadou Fofana ma yeewi la Euh, week-end bu jàmm. fin d'année jàmm <laughs> ñu dugg bu baax ci atum deux mille vingt quatre. ndax xam naa balaa ñu fee dajawaat amaana talaata. oui talaata incha allah la le deux lay doon. Mhm. en tout cas ñu ngi gërëmati ñëpp di sant ñëpp encore une fois di leen remercier ci taamu gu ñu taamu Sen TV Zik FM mhm. yéen a tax ñu jël paie. en tout cas amuñu seen fay. Mhm. c'est tout un plaisir également bokk ak yow plateau bi maa ngi doon wax sànq ak ñëpp ñi xam ne ñu fi woon. en tout cas merci beaucoup. bonne et heureuse année par anticipation merci infiniment jërëjëf jërëjëf Mamadou Fofana atum 2024 jàmm euh, ñu jeexale xibaar yi ak li des mooy fondation Total Énergie bi nekk fii Sénégal démb mi ngi doon organiser ab opération opération maye casque rawatina pour borom deux yi waaye itam sensibiliser leen ci luy mën a tax su gën a moytandiku accident yi nekk ci circulation bi euh, pàcc bu njëkk bi mi ngi amoon ci station bi nekk fii rond point Liberté 6 fii ci Ndakaaru ba ca des ca kaw autoroute ba Eh, ña ko sooke nag di waa Énergie lañ cay jublu moom moo di mandargaal jëmmal semaine bi nga xam ne moom la àdduna bi yëpp jagleel wàllu sécurité routière lépp nag ngir xeex accident de la circulation yi ci teewaayu Tidiane Diallo ak Pauline Thiam. ak moto yu bëri bu ñu gis ci dëkk bi moo waral waa fondation Total Énergie Sénégal lancé benn projet bu ñuy woowee un casque une vie ngir aar ñiy dawal moto yi. ñi Total moo ko indi ci Afrique.